je suis contrôleur de la navigation aérienne et que je suis ingénieur technologue et que j'ai trois autres métiers qui consistent à auditer ou à certifier des aéroports et que je suis expert en sécurité, mais je garde toujours en moi cette volonté et cet ancrage au corps du contrôleur de la navigation aérienne. Je n'étais pas brillant, mais j'étais dans une classe où il y avait 5 Sénégalais, avec 17 autres nationalités. Je ne suis pas sorti dernier de ma promotion, je suis sorti quatrième de ma promotion. Pour faire ce métier, il faut jouir de ses facultés et avoir un niveau technique Pour ceux qui se posent la question, qui pensent que contrôleur aérien, c'est la personne qui contrôle vos passeports à l'aéroport, je vous rappelle, c'est malheureux mouvements monde qui ont eu à se faire. Notre corps de métier en grève a paralysé le ciel Il n'est pas permis à tout un chacun d'être contrôleur aérien. Il faut jouir de ses facultés. Un prédateur ne peut pas l'être. Un malade ne peut pas l'être. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir toutes les qualifications requises, d'être formé à bonne école, avec des témoins, que ce soit au niveau de l'opposition, que, ce soit au niveau de la majorité, mais je, je n'insulte pas mes camarades de promotion, mes camarades de place sont au Sénégal. Donc, après mon passage à la faculté des sciences, j'ai eu à le dire, j'ai fait l'EAMAC, l'école africaine de météorologie et d'aviation civile, comme contrôleur de la navigation aérienne, métier que j'ai exercé avec honneur jusqu'en 2012. La politique n'a jamais été un métier pour moi. C'est un cadre de l'aviation civile, dans l'opposition. J'avais l'équivalent d'un salaire d'un député. J'ai travaillé 10 ans avant 2004. En 2004, quand Ousmane Songo sortait de l'ENAM moi, j'étais déjà contrôleur aérien. Et ce que j'ai gagné était deux fois plus important. Comme vous le savez, les personnes qui sont pressenties pour occuper de hautes fonctions sont nommées par décret. J'ai eu l'honneur à bénéficier de la confiance de son Excellence le président Macky Sall, président de la République, qui m'a fait occuper jusqu'à ce jour de votre responsabilité. J'ai bénéficié de sept décrets de nomination du président de la République. Je compte bien, je dis sept. Et vous savez que les personnes qui sont pressenties à occuper ces hautes fonctions, qui sont nommées par décret, font l'objet d'une enquête de moralité. Donc cette fois, les services dédiés ont enquêté sur ma moralité, à savoir est-ce que j'ai eu à voler, est-ce que j'ai eu à fréquenter des mauvais endroits, est-ce que j'ai eu des problèmes avec la justice, à savoir est-ce que j'ai, est que, est-ce que j'ai formalité que M. Ousmane Sonko, par tous ses excès de perversité, de méchanceté et de haine, ne peut pas remplir. Aujourd'hui, même si le président de la République voulait le nommer, Ousmane Sonko ne peut pas être nommé. Parce que vous et moi, nous savons qu'il ne remplit pas les critères de la bonne moralité de par les endroits qu'il fréquente. républicain. Et je crois à la liberté, je crois à la démocratie. Mais le sous soubassement de mes convictions sont la foi musulmane. Je ne m'en cache pas. Et Dieu, lui, il fait référence à Dieu, il se prend pour un imam. Donc, il devrait comprendre et il devrait savoir que Dieu a eu à dire dans le Coran, soyez fermes dans vos devoirs envers Dieu et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Ayez de la piété envers Allah Certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Si on se réfère à cette surat 5, verset 8, qui émane d'un Coran, lui, les agissements, ses fréquentations, ses agissements, son comportement le réduit au moindre, à la punition, à la lapidation. Convenez avec moi que l'on juge une personne sur les actes qu'il commet et non sur ses paroles. J'attends Ousmane Sonko à ce qu'il produise le rapport de l'inspection générale d'État qui m'incrimine et je prends le peuple sénégalais à terme. je ne me compare pas à lui, parce que tout simplement, des accusations ont été faites sur ma personne. J'ai eu un comportement, et je pense que ce comportement est le comportement d'un digne Sénégalais qui fera la République. Quand on vous accuse de malversation, quand on vous accuse de détournement, pour mettre à l'aise les gens avec qui vous êtes, de temps en temps, ça peut vous busquer de temps en temps, ça peut gêner, de temps en temps, ça peut saper la cohésion. Mais la dignité humaine et les valeurs auxquelles nous, on s'identifie, nous imposent. Je ne dis pas que je suis le seul, mais en tout cas, ce sont les gens qui ont vu ce comportement. Accepter de se démettre de ses responsabilités, accepter de se démettre de ses privilèges de juridiction, accepter d'aller affronter la justice en tant que citoyen simple. Il a eu l'occasion de le faire. En tout cas, moi, au moment opportun. Et je suis, jusqu'à présent, prêt à le faire. S'il produit un rapport de l'inspection générale d'État qui m'incrimine, je prends à témoin le peuple sénégalais. Je renoncerai à toutes sortes de privilèges, de juridictions ou de privilèges de droit et j'accepterai que vous finissiez. Il n'a pas eu, lui, à faire ce comportement. Il avait l'occasion de prouver que c'était un digne fils. Il a été accusé par une personne que vous connaissez. Il n'a pas démissionné. Il a été accusé de problèmes de mœurs et d'activités contre nature. Il, a fait appel à son humilité pour se protéger. Il a été accusé de perversité et de délinquance sexuelle. Il a appelé la jeunesse de ce pays à résister à ce que la loi qui nous régit, nous tous, ne soit pas appliquée. Maintenant, sa stratégie consiste à allumer des contre-feux, des pare-feux, pour nous faire oublier qu'à lui, on lui demande tout simplement de donner ses salives ou de se rincer l'oreille ou un cheveu. On ne lui a pas demandé son sang,

di wax ni que ci réew mi toll wax dëgg yàlla am nañ sax kersa di leen di leen wax ci leneen lu dul li nga xam ne tey moo dajale askan bi yëpp li ci ëpp ci réew mi ñi bëgg réew mi ko ñu ngi xool ndamu réew mi di xool euh,

ñu jëmul ci loolu waaye tey du mambay ministre moo fi toog du mambay membre gouvernement moo fi toog du mambay membre APR Bokk Yaakaar moo fi toog mambay ñaa simple citoyen sénégalais moo fi toog ndax umpul kenn ci wax yi nga xam ne waa coalition Yewwi Askan Wi dañ koy wax démb Ousmane Sonko tudd na ma ci point de presse am na am na rapportu IGE muy inspection générale d'État mooy saytukat yi nga xam ni ñoom la yoon may ñuy saytu nee na Ousmane Sonko nee na yor na rapport boobu boo xam ni dañ ma cee ci luubal ci programme domaine agricole nee na sax ku doye di la nee na tamit bari bu ma xam-xam waaye damay fàttali rek man de ba tuuma yu joge sama ndol bëgg setal sama der ci niñ ma yar ci li ma gëm ak ci ma sama njaboot ak ni ma nekké ak sama mbokk ni ak ni ma nekké sama wa kër mani teki, tekki ndombal tan li nga xamni njitu rew mi daf ma pour que ñu dem ma setal sama der ma ni guléet mu am fi waaye néew na ñu koy def Prodac boobu muy wax ma leen di fàttali moom mi bëgg a jiite réew waroon naa sax jéem a xam am réew nan lay doxe parce que ka fa nekk ci jamono Jean Pierre Senghor la tuddoo décret moo ko nangu keneen ki ci toppoon maamina kamara lu tuddu deukere moko ko nommé comme ni ma décret nommé ci sama digënté ñom mo am lu tuddu conseil de surveillance man ma nek ministre de tutelle ministre de tutelle moy lepp lu walu yor walu technicité bi donc buñ topé yoonu ni nguur di man aw mënuma laalé mënuma xam sama signature bu génné xaaliss duma fay ñu ni dañ ma tuumaal ma nangu tekk li ma yor parce que wóor na ma sama biir xol ak sama diggante ak yàlla sama borom ni que lii ñuy wax du dëgg du dëgg parce que bu amoon xaalis boobu ñu wax ni ko maa ko yóbbu kon tey projet yi du taxaw du dëgg parce que luñ la dénkul mënoo koo jël du dëgg parce que li yoon tëggoo mënuma cee egg waaye nag moom mi nga xam ni nee na dañoo doy fekk suñu ñun suñu njàng doyul moom de daa bëgg jiite am réew waroon naa fexe nag ba ni am réew di doxee mu xam ko waaye du gule du gule Ousmane Sonko di wax lu dul dëgg waaye bii yoon nag ah lu demee nam daan deme de li olof di wax naan egg na ci daj dellu wallahi egg na ci daj dellu daj dëpp parce que nag porté naa ko plainte bu mu ni dañ ko komplo bu mu ni dañ ko tey woote mortel combat bu mu ni nañ ko gunge moo taxaw ci kanamu askanu Sénégal yëpp mu ni leen yor na rapport bu IGE boo xam ni daf ma tuumaal ci wàllu luubal porté naa ko plainte na dañuy dem laajuma ko leen mu expliquer boobu mu def dara bu yoree rapport na ko publier sax na leen ko jox yéen journaliste yi avant ñuy dem ci yoon buñ demee ci yoon nag ko génnewu buñ demee ci yoon nag ci génnewu parce que dinañ ko déglu dinañ ma déglu dinañ ko déglu dinañ ma déglu balaa muy dem bu fekkee lu leer rek la bëgg na génne sax rapport bi jox leen waaye bu mu indi ñaari feuille ni diwoo bind lii rapport ñun ñëpp xam nañ nañ la rapport bi mel Sénégal ak lu ñu ñi ñàkk xam ñàkk xam ñàkk xam xam nañ rapport parce que ci seen yi biir yi wax sax dañuy juum ñi ci ëpp ci ñoom dañoo defe ni woon ne que man maa nekkoon directeur product xaw ma ana waa Sénégal démb ci article bi ngeen bind dañu bind sax l' ancien DG du product man musuma nekk directeur product musuma nekk président conseil d' administration du product ministre de tutelle product laa nekkoon dafa di man boo ma dénkee dañ sas nangu naa bépp jubadi bu ci am man sama bopp ma layoo ko waaye jël tuumal ma man defuma ko moom nag tuumal na ma man ba ñu ma tuumalee tekki naa samay ndomba tànk nangu naa dem doonte amoon naa kiir laay yoon ma ni man bëgguma kiir laay yoon bi parce que boo nekkee ministre am nga privilège de ci say exercice man dem na sax ba ni bugguma loolu lépp gedd naa ko mais nanguna jakarlo ak yoon sama deuk pour ñu wax ndax man ma jël bu fekke man ma jël na yoon dal sama kaw bu fekke jëluma tamit ñu xamni jëluma mom bañ ko tumalé li mu jëkka def moy def ni man député la kiir lay googu lay laaj moom bañ ko tuumalaa li mu njëkk a def mooy dajale réewu Sénégal yëpp ni dañ maa kompaloo dañ maa bëgg yóbbu ci yoon rey ma moom bañ ko tuumalee daf ni ne ndawu Sénégal yëpp wàcc ñu taal dëkk bi parce que dañ koo war a xeexal parce que moom dafa dem sàkku benn jigéen ci lu dul coobareem ak ci ay activité contre nature bëgguma egg ci wax ci donc bu ma bëggee dëkkale ak boppam wax dëgg yàlla du ma du ma du ma man de lu ñu ma tuumal nangu naa def sagal sama def moom fii ñu toll nii tufli ñu sakal la ñu xool ndax li man ñëw bi ñu fekk ci soxna si yaa ko moom wala moom mu ni du tufli jubootul jox ñu mu ni du ko def lambal kaas jox ñu mu ni du ko def jox ñu sax sa benn karaw mu ni du ko def man bañ ma tuumalee man nangu woon naa dem léegi nag moom nee na li ñëpp doon seet ñu condamné ci ay journaliste man xëy na dama am naa kersa di baaxoo naan tëj naa kii tëj naa kii mais am na ay télé Walfadjri groupe yi man ak ñoom jàppante nañ ci loolu journal laas jàppante nañ ci loolu ak beneen journaliste ak beneen journaliste ñu dem tribunal ma parce que dañoo déggoon nit ñi di wax naan rapport rapport rapport rapport bi ko imprimé ñu bind ñu dem ci yoon ñu laaj leen rapport bi produire ñu rapport bi léegi nag comme que Ousmane Sonko moom nee na li fi seen lépp dajale na moo ko wax de démb loolu la wax nee na gars xamuñu lépp que man rapport yëpp am naa ko denc naa ko léegi ay problème mu tóob waaye léegi man rapport IGE bi muy wax xam nga rapport IGE sax dañ koy déclassifier pour mu mën ko yor mais maa ngi giñ ci alxuraan ni que même buñ ko déclassifié wul man ci sama li ma seq ak président Macky Sall bu ko Ousmane Sonko joxee rapport bi maa ngi giñ ci li ma seq ak président Macky Sall man dinaa taxaw ni ko rapport bii nii kenn du ci topp Ousmane Sonko parce que daf koo génne man koy giñ ci alxuraan donc bu ko amee comme ni mu waxee ni que yor dem na xaw ma ci juge ba déposer rapport xaw ma lan rapport IGE bu incriminé Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko mën na ko génne ca balaa mu koy génn na leen ko jox ngeen tas nañu bàyyi naxante bi nañu bàyyi sosalante bi nañu bàyyi xëccoo ci lu dul dëgg comme que nag day indi tuuma man day tuuma maa leen di wax ni dinañ dem ci dem nañ ci yoon buñ ko woowee bum ni dañ ko komplo bum ni procureur bi fii Sénégal ñëpp ko bokkoon ay école école bi mu génn ay moromam fa nekkoon ñu ko fa raw moom daara la jëloon baax na ñuy leeral accusé wu ma ko bu fekkee des yu mel ni ay problème mu Adji Sarr yi la ko amoon man président mel na man juróom-ñaari yoon juróom-ñaari décret décret balaa nga koo am dañ lay saytu ci wàllu jikko ci wàllu nekkin ak ci wàllu doxalin buñ ci gisee benn gàtt gàtt président décret moom saytu boobu tey buñ ko ko defoon yéen ak man ak ñi toog ci salle bi yépp xam nañ ni mënuñu koo nommé donc bu ñu naxante coow bu nekk dina ko fi xëcc li ñuy fexe lépp mooy indi fi wax pour ñu fàtte procès bi li muy def lépp pour ñu jàpp ko ci leneen ci lii moom kenn du ko ci jàpp waaye nag dinañ ko wax mu indi rapport ci liñ ko war a jàpp bu jotee dinañ ko jàpp te jàpp naa ne jot na képp kuy sénégalais nga taxaw nag parce que yoon dafa war a am fii amul benn sénégalais buñ fi accusé de viol ngay dem di comparaître libre

ni la ku ko def crime la peine bi 10 ans la yow ñu diñ la viol nga yëk nga nga voté yëk sa loxo voté loi bi ñu diñ la viol nga nan da ngay woote ay man duma mom mom duma man dañuy politique nag man buñ paré ci li ba li jënti wax yu plainte bu mu produire rapport man dina len wo man duma ko sosal damay tok ngeen tok

am na kenn ku ci bëgg a laaj dara ñu jël quatre questions yéewee parce que ñu ngi leen wax leen dëkk Sénégal c'est bon voilà merci madame ci question premier ministre Amadou Ba kon a ngi de li mu wax lépp histoire du Prodac dama waxoon ne que produirez un rapport à moi après xëy na ma ñëw ci m'a dérangé au ma wax histoire du produit. six mois après l'exercice budgétaire 2015 dama avant de signer le contrat à Green 2000 dama jot lettre travailleur bu nek product bu pouvez lire pour voir waxi grille salariale la ma une demande d'explication que fa le directeur madame coordonnateur Jean-Pierre Senghor ñaari weer après mu tontu ma yónnee waat ko beneen demande d'explication ñu dem ba egg ci ñetti demande d'explication ñeenteel bi ma bind inspection interne ministre de la jeunesse ni leen dem leen ngeen audité Prodac ñu dem audité Prodac ñu indil ma rapport interne bi ma xoolee rapport interne bi ma bind ministre des finances Amadou Ba ni ko audité nañ partie technique bi waxal sa service yi ñu ñëw audité partie financière parce que ñi ngi gis ay facture yu fay ak yuy tardé il faut que procédure yi gaaw loolu mooy rapport li premier ministre di wax tay jii ni man ma bind je pense que deg na ni muni mam bay momu bind ni ma kay audité deug la et bi ma koy bind rapport interne biñ amone ci product mo tax ma bind histoire ba namu mu juroom ñent ñent wër après lolu defe naa yéen ñii yéen a bindoon ni que Mame Mbaye Niang obtient la tête de Jean-Pierre Senghor am de sene Seneweb yéen a ko bindoo article bi donc man bima ma amee document yooyu li ma may comme tutelle la ma bind premier ministre ñu jox ko président ñu jële ko foofu yóbbu ko feneen andi fa Mamina Camara ma min maamina daxe du moins loolu la de mais comme que Ousmane Sonko moom nee na yor na rapport yëpp nañ xaar rapport IGE bi mais bu leen kenn yóbbu nag ci ay njaaxaa njaax parce que ku ci jàngul bay ba mu contacter auditeur mu wax la rapport nan lay mel am de ñun ñëpp xam nañ rapport nan lay mel bu kenn dem bind inter bind sa feuille quatre feuille rek ñëw daal ni leen lii oui lii mu lii lii mooy rapport bi dugal Ousmane Sonko rapport nit da koy signé ñu bind turam mu am tampon nit ki nekk wala donc bu leen kenn dugal ci ay non ay rapport baa ngi nii rapport moom ñu ñëpp xam nañ lañ lay am dañuy entendre ñëpp mu am ay voix contradictoire te ñuy accusé ñu ne ko accusé nañ la lii ci rapport bi mu ni ñu ni kiñ accusé lii nii la tontu après euh, auditeur bi def kii après ñu xool situé responsabilité ku ci nekk ñu wax la kañ la jàppe léegi Ousmane Sonko nag moom nee na am na rapport IGE bu mu dugal rapport boobu lañ bëgg mu génne maa ngi gis ci alxuraan ni que rapport boobu amul mais comme que moom nee na am na ko et ay am na ay nit fépp li président bi ndekkee sax xam na ko ah xëy na bu ñu ko woowee dinañu jox rapport boobu heure bu ñu ko bu joxee rapport boobu nag man nangu naa lépp lu yoon wax ci man ñu teg ma nangu naa jour ba muy indi rapport bi man bu ma ko demee fekki foofu pour confrontation man nangu naa ma ba a ñibbi sama kër bu boobaa ñu xam ni man maa def waaye tamit buñ ñu joxe bu indiwul rapport ah boobaa mu yëf yi beneen mbir lay nekk. te bu mu ñu def comme ni mu defoon ci 94 milliards yi taxaw ni yor naa ay firnde am naa lii ñu woo la yor naa virement yi ñu woo la nga ni déedéet bi yoon mënul nekk man ak moom ci yoon par force te bu mu wax kenn dañ ko complot du ministre moo ko porté plainte du keneen sénégalais bu mu toog tudd ci point de presse tudd turam ni moom yor na rapport IGE na ñëw beneen député bi ba ma demee assemblée lam ma wax tontu naa ko

Birahim Seck depuis boobu ba léegi lan moo tax boobu ba léegi dégguñu ko ngay ko léegi parce que Ba ak DG yi nekk Kodak donc c'est la première fois depuis boobu léegi ñu dégg la bay dem bay annoncé nag lan ah, bi ñu ne que Mambay ko épinglé Birahim trouvé na ay technique am wax wax wax wax ba doo dara Birahim bindul livre am boobu ci loolu Birahim Seck livre am boobu bindul ci ni ko Mame Mbaye dafa sàcc vingt neuf milliards moom daf ni am na benn scandale vingt neuf milliards après commencé dugg ci ay procédure naan ay xaw ma lan ay notification ay xawma lan loolu c'est des arguments techniques xam nga code de procédure ak yaa jël xaalis bi bokkul <coughs> bokkul de bu ñu yóbbu ci ay noo ay lii yaa jël xaalis bi yaa sàcc xaalis bi ak lettre lettre bi dañ ci def photo yooyu bokkul Birahim Seck xam-xamam nekkul foofu Birahim Seck dañ ko dàq DCMP pour incompétent c'est bon. merci beaucoup merci monsieur le ministre. ñu yemale ko foofu à la prochaine merci merci d'être venu à nos amis journalistes merci beaucoup.